alors euh, Aliou Sow rapidement nga wax ñu point bi point yi ñu daal di ciy dox. sama ñaari mbir laa bëggoon yox tey. Mhm. mooy euh, Marine Le Pen jot na presque huit milliards wala jotul huit milliards. Mhm. Marine Le Pen aurait-elle reçu. Mm huit milliards de francs CFA maanaam douze millions d'euros. Mm environ euh, ci loxo Macky Sall. Mhm. jox na ko ko wala joxu na joxu ko ko. may na ko ko wala mayu ko ko. yooyu day faral am. ci réew jox na ko wala jox ko ki ko wax dafa doy waar. Hadjibou Soumaré moo wax loolu l'a dit donc euh, premier point bi deuxième bi. deuxième point bi oh hmm. c'était quoi je sais plus. Hmm. mais je crois que ni ça va concerner le cas de Mimi Touré. Mm. Mimi Touré Ablaye et le PDS. d'accord. Macky Sall et le PDS. d'accord euh, dinañ ci dikk tout à l'heure mais peut-être ñu commencer par le premier point di le cas Marie Le Pen aurait-elle reçu euh, euh, huit milliards wala huit milliards c'est ça non. de oui environ presque sept milliards neuf millions. douze millions d'euros. boo mhm. calculer une déclaration de Hadjibou oui plutôt question boo xam ne Hadjibou Soumaré daf ko laaj président Macky Sall. Mhm. mais Hadjibou Soumaré ancien. Euh, justement euh, premier ministre de Abdoulaye Wade. Hadjibou mhm. Soumaré donc ancien patron de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Hadjibou mhm. sumare boo gisee ma insister ci fonction yooyu mu jotoon am. maanaam am na jaar-jaar. Mhm. xam na xaalis nu muy fonctionner xam na transaction yi ni muy mën a mel et puis surtout am na réseau. waaye est-ce que tax na li mu wax mu doon dëgg wala mu doon une vérité en réalité Hadjibou mhm. Soumaré n'a pas accusé Macky Sall d'avoir donné 7 milliards 900 millions à Marine Le Pen mhm. la patronne du Rassemblement national parti bi nga xam ne c'est réputé être un parti d'extrême droite français eh ben est-ce que Marine Le Pen jot na xaalis parce que ak yi bu de Soumaré dafa poser juste question. dafa laajte ne est-ce que yow Macky Sall jox nga diw xaalis. te du mhm. loolu sax la laaj na ko aussi est-ce que da nga bëgg reporter élection yi mais boobu beneen mbir la. Mhm. élection présidentielle yi. Mhm. mais surtout xaalis bi nga xam ne nee nañu jox na ko benn nit. boo xam ne dafay politique te dafa réputé être euh, justement euh, l'opposition euh, la plus farouche donc au président Macron te bëgg jël réew mi te di avancer nag. kon loolu xalaat boo xam ne la ay question la. parce que un coup ma ne mën na nekk parce que d'habitude yooyu dañ koy def. Mhm. ndax man ci boppam xam naa ay nit ñoo xam ne ay sénégalais yoo xam ne surtout kenn koo xam ne euh, euh, euh, mu tudd l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Mhm. da ko doon jox xaalis. mais xaalis bi mu ko doon jox da ko doon jaarale via son directeur de cabinet waaw léegi kon yooyu xam ngeen ni day faral di am. Mhm. Sarkozy xam ngeen ni ñu bari wax nañu ni euh, euh, Kadhafi Muammar el Kadhafi ancien président lib euh, euh, libyen assassiné horriblement. Mhm. en 2011 kooku da doon jox xaalis président Sarkozy candidat Sarkozy. Oui. yamuñu foofu Jacques Chirac xam ngeen diggante bi mu amoon ak kan Omar Bongo El Omar Bongo hmm. bàyyu ki fi nekk léegi tudd Ali Ali Ali Bongo waaw léegi xam nga yooyu day faral di am. Hmm. moo tax boo ko déggee sa xel bi danaan te danaan mais est-ce que bii dëgg la wala du dëgg. parce que tamit boo nekkee ci mbir nekk ci opposition ñu mën a espérer yaakaar ci yow. Hmm. un jour dina am nit ku la mën a dimbali parce que mi ngi ci nguur gi parce que mën na espérer des fois dimbali ñëpp en même temps waaye kenn du xam. ni dimbali nga ko mu nga dimbali ñëpp mu nga dimbali opposants yi mu nga dimbali façon bu nekk mm-hmm. parce que da nga naan ku si nekk mën nga nekk président donc autant ma dimbali ndax koo dimbali du ko waxee mm-hmm. sauf forcément question boobu mooy effectivement tey jii nii ku leen ko waxoon yéen ci seen bopp en tant que nit avec vos réflexes ak seen intelligence est-ce que loolu mën na nekk parce que c'est une question ce n'est pas une accusation mm-hmm. waxu ko ne yow da nga jël xaalis jox ko mari la mais daf ko poser question bi ana lu am ce réflexe là ba di ko ko laaj amaana kuy laaj ça veut dire que dara wóoru la. d'accord euh, euh, kuy poser question. Mhm. maanaam da nga bëgg xam da bëgg a leerlu. Mhm. waaye mën nga laajte aussi parce que am nga loo xam ba pare. d'accord waa xam man fu ma bëgg laaj laajee ban benn laaj laa laaj dama ne bu fekkoon bu fekkee ne am na est-ce que est-ce que tey ak euh, Sénégal fu mu toll. Mhm. est-ce na Euh, Macky Sall di jël xaalis boobu di koy jox Marine Le Pen. surtout il faut s'assurer que ni loolu am na ba pare. loolu laa lay laaj non. parce que nee la tradition yi am na benn journal français bu ko bind. dama ne bu dee am na dama tur bi te bëgguma wax tey. Euh, mhm. xaw ma précisément turu. turu mhm. journal boobu noonu. bu fekkente ni c'est mhm. avéré. man bëgg naa xam Macky Sall lan moo dox suñu dégganteeg moom lan mooy jafe-jafe bi. fi nga xamante ni fi la Sénégal toll mhm. Sénégal toll fi ci abri provisoire Sénégal toll fi ci dund gu cher Sénégal toll fi ci loyer bu cher ba mu jaral ko mu def décret tey jii ngir xoolaat dundinu ñi nga xamante ni ñoo di lekk locataires yi au Sénégal mu yëkkati xaalis bu ni mel xaalis bu nu toll jox ko Marine Le Pen maanaam yow yaa ngi saraxe te sa waa kër yow lekkaguñu ba suuf. mais il faut s'assurer lan mooy problème est-ce que si c'est vrai euh, ni euh, question bi. Euh, bu ñu poussé rek. day mel ni lii daf ñu leer am ci am ay firnde yu leer. d'accord mais est-ce euh, laaj bi euh, Alioune du du laaju du laaju jébaane si jox na ko ko. wala jox ko ko yéen moo tax ma ni laaj ah, bi man damay j'ai question laaj bi est-ce que du laaju jébaane maanaam ni mu génnee les quatre questions tey fësal ko ci yenn ci ay yéenekaay yëpp bind ko. Mm-hmm. li ci gën fës bokk na ci xaalis bi ñuy wax nii. Mm-hmm. te ñoom xamante nañu. parce que fi fii koo fi nekkal am na fu ñu jaar jaar nañu ci mhm. ay liggéey donc euh, li war est-ce que du ñoom tey gouvernement bi ñoo war a génn démentir boobu la information waaye nag tant que parti bi ngi am est-ce que duñu jàpp ni dëgg la ndax lañ leen jiin ci seen diggante ak tubaab bi xam nga nguur dafa yaatu mhm. dafa rëy et c'est c'est tu ku wax rek nga tontu ko li euh, c'est pas une information c'est une question qui a été posée. mais euh, qui ne dit rien consent. non la ñuy wax noonu non ça ça c'est pas forcément vrai surtout bu fekkee da nga nekk ci station gouvernementale. aji bu ne pas n'importe qui aussi boo xamee état nu muy fonctionner. peut-être sax encore euh, am nga droit bu la neexee nga tontu bu mais ci état bu fekkoon ni ko wax rek kon demain je dis quelque chose et j'attends qu'il me réponde quelqu'un d'autre dise de telles question Oui. à tort ou à raison. Mm. waaye bu fekkee ni lu ñëw rek nga tontu ci peut-être mun na poser un problème question bi kay. Mm. mooy ñun suñu xalaat ñun suñu réflexe bu ñu toogee xam nga nee naa leen dans la tradition jox leen ay exemple dafa faral di am. parce que am na ñu koy faral di def. d'accord di jàppalante. Mm-hmm. Guinée Bissau jàppale woon nañ ko. Mm. Guinée Bissau nga wax de. dama ne mun nañ nekk ay voisins. waaw dama ne état jàppale état ak état man loolu daa ko naan. non dama ne Guinée Bissau rek parce que jàppale na Turquie ci euh, séisme bi yóbbu fa ay pompiers. te voilà loolu mais dama ne. nii candidat la wax. non waaw. <laughs> mais Hadjibou man man li may mooy Hadjibou n'est pas n'importe qui ah, yow man euh, sama question tontoo ko man yow en tant que chroniqueur. en tant que man sénégalais. dama bëgg nga tontu ba dama ne bu fekkee ne dëgg la. Hmm. fan la teg loolu fan la mag Sall teg loolu. tey yoon la wala du yoon dëgg la tegu ko fenn waaye boo posé bu fekkee ni dëgg la dangay ngay laajte aussi. bu fekkee ni du dëgg. parce que munoo rek. man j'espère que du en tout cas. non non waaw Cheikh ma ñëw si yow <laughs> nga ne bu fekkee ni dëgg la. Ah. loolu. ce serait euh, scandaleux mais nag boo laajee loolu ba pare da ngay laaj beneen question bi bu fekkee ne du dëgg nag je comprendrais parce que yooyu aussi dafay am ndax quelqu'un comme Hadjibou Soumaré mm-hmm. Mm-hmm. un monsieur qui a été ancien premier ministre du Sénégal mm-hmm. euh, président union euh, monnaie UEMOA union économique monétaire ouest-africaine euh, quelqu'un boo xam ne aussi eh ben il a été candidat aux élections présidentielles waaye depuis bi mu perte bi mu demul ci élection yi ba léegi eh waxatul. d'accord lu tax que c'est que maintenant. ci politique parce que. il n'a jamais suivi ses activités politiques. musul c'est la ca pare. lu tax mu ñëwaat nii rek par hasard wax ko. loolu aussi pour euh, euh la petite expérience que j'ai euh, pourrait être une stratégie de sa part pour quelque orientation que lui-même il maîtrise. D'accord. parce que moom rek moom moo xam. parce que ci diggante bi bi mu bi mu bi bi élection présidentielle yeey jeexee ba tey. waxatul woon. lu tax mu xaar ba mu des. élection yi muy wax. Mm. ana lu ko. Euh, lu ko animé donc ñaari question yëpp mm. la ñuy posé sénégalais nag nañu bàyyi xel mm. et puis peut-être que ce serait bien que le président Macky Sall mm-hmm. de manière exceptionnelle comme il s'agit d'un ancien premier ministre mm-hmm. eh ben euh, ñu def am na ko tontu ko tontu euh, seen task force ba ay Biram Faye nee na livre kese la ñu may Marine Le Pen mais qui a tort qui a raison mm-hmm. on sait jusque ni habituellement yu mel ni dafay faral di am ndax nee naa leen y un sénégalais mm. boo xam ne Blaise Compaoré loolu man daf maa wóor daf ko doon jox xaalis bi mu contrer Abdoulaye Wade nekk ci opposition bi via son directeur mais, de cabinet. mais Ablaye Macky Sall loolu mënuñu ko ko baal ñun. dañu nekk ci ay jafe non xamuñu wax non xamuñu wax l'explique bu ma xew ci beneen dëkk. non mënuñu wax baal war a xew Sénégal wax comme si c'était vrai. Euh, mais dama ne si c'est vrai vrai bu xewee si beneen dëkk aussi war a xew fii Sénégal duñu ko ko baal. parce que dañu nekk ci ay jafe-jafe. bu fekkee ne nag du dëgg nag. waaw ok tant mieux waaw boobu ci insister ni loolu Euh, waxul ni Macky Sall yow da nga jël xaalis sangam joxe ko. Mm-hmm. dafa rek laajte. maintenant nag moom bu waroon la sax gën a mën a leeral mbir mi ba duñ fi nekk sax di wax ak duñ ko baal ak dinañ ko ko baal mm-hmm. mooy Macky Sall jël nga 8 euh, milliards jox nga ko Marine la Pen. mais tontu tontu woo ma de on pourra même du cas Mimi Touré mm. fi mu nekk nii waxtu bi mm. xoj na une minute peut être rapidement nga wax ci. Mimi Touré. Macky Sall le PDS. Mimi Touré Macky Sall ben Mimi Touré bon euh, parce que Mimi Touré nee na. moom euh, euh, waa waa PDS nee nañu lépp lu ñuy def ci opposition bi moom. bépp coalition bu ñuy def boolewuñ ci Mimi Touré. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, problème moom mooy Mimi Touré tontu na len ne leen yéen da nekk ci benn deal. Mm-hmm. ak Macky Sall. d'accord alors Mimi j'aurais envie de poser la question à savoir est-ce que vous pensez que Macky Sall a bel et bien rencontré Karim Wade à Doha. d'accord. ndax Macky a rencontré Karim Wade à parce que loolu dina tax parce que xam ngeen ni euh, yu ci bari ci vote yi nombre de députés yi bu matul. am na benn partie de députés yoo xam ne dañu nekk en phase avec Lamine Thiam. buy jàppale buy votel en général loi wu Macky Sall yi. pour le Benno oui. au profit du Benno. Mm. alors li ma bëggoon xam mooy ci yu mel nii. Mm-hmm. j'aurais bien voulu. que Mimi Touré. dimbali ma demain incha allah nga c'est un sujet <laughs> important. on aura peut-être il faut xel yi il faut xel yi di di match. di di match gars yi di dóor ay ay questions. ayca ah, euh, ñu ñu ñu ñu jàll si leen. waxtu wee ñu yàlla yàlla sama kontaan na. liggéey bi am na solo alors euh, euh, ñu def une petite pause ma yeddaat sama njaboot gi après ñu ñëwaat.